xat-xat yi ak euh, programme yu bari parce que ni ma ko waxee sànq rek dee leen jël numéro bi ndax programme yi dañ koy xëccoo euh, bëri na ñoo xamante ni sans ci nekk ñu ñuy woo fu nekk ci biir mi ci bitim réew diaspora bi rawatina euh, di leen jox xibaar yu wér di leen jox tous les événements yi nga xamante ni bëgg nañ ñu couvrir ko donc c' est l'une des raisons pour laquelle donc ñu daal di rek absenté ci cette semaine passée mais ñu ngi ci jégalu bu baax a baax waaye di leen fàttali bu leen rek ñàkk bés cloche bi ngir abonné recevoir recevoir suñu notification suñu ay information en temps réel euh, tant sur le plan national qu'international di ziare sang yu tedd ci biir réew mi yëpp sëñ Mountakha Mbacké Bassirou yàgg fi te wér sëñ Babacar Sy Mansour ak mboolem kulli xalif général yal na yàlla def fi jàmm ci réew bu Sénégal ndax jàmm am fi mooy suñu euh, rek njariñ euh, niñ ko baaxoo defee nag dañuy door actualité de la semaine ak lu soxol xew-xew jëm ci li nga xam te moom moo di violence universitaire bi ñu nemmeeku jamono ji ñu gis également cette tension bi nga xamante am na euh, dans le temple du savoir mu nekk loo xamante nag euh, jot na euh, jar na taxaw seetlu taxaw seetlu bi mooy tey ci vraiment dañu war a def li nga xamante moom moo di ndëpp ndëpp ci sunu enseignement d'une manière générale parce que tey pour man enseignement bi sax war nañu mën a dem ba au delà du nekk ay pàcc pàcc boo demee lu mel ne Canada benn ministère rek moo fa am boo xamante ni moom ministère de l' éducation lañ ko tuddee parce que lépp la coiffé maintenant fii nag on a tellement. des ministères mais euh, si sama xalaat yaakaar naa waroon nañu mën a def benn ministère mu am ay direction euh, parce que bu ñu xool fii am na ministre de l'éducation nationale am na ministre de la formation professionnelle et de l'apprentissage am nañ ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation am nañ euh, petite enfance case des tout petits mu nekk ay bànqaas yu bëri yoo xamante ni ni ñu war a liggéey de façon corrélative defuñ ko lenn aussi li ñu war a mën a jàngat ci université bi mooy il faut que ñu dépolitiser université tant que ñi ngi bëgg a dem ci en arrière di wax ne université euh, politique mënu faa jugee ay wax la euh, loolu jàpp naa ne bokk na ci li gën a influencer violence bi parce que euh, bu ñu gisee lii di coloration politique ba fa nekk ay ay yenn entité yoo xam te ñu ci ay parti politique d'ailleurs la plupart ñooy semé ñoom ñooy gën a porter lii di violence ba nga xam te ñi nga xam te laale wuñ ci euh, di ci dund euh, di subir de conséquences yoo xam ne des des pays di pots qui n'ont pas caché maintenant euh, il faut que état jël ay responsabilité il faut que état aussi taxaw def li nga xam ne moom moo di auditer gestion universitaire parce que bu ñu demee ba li nga xam ne moom moo di étudiants yi boo gisee li ko gën a déclenché Bambey yi dañu ne lekk gi ñu doon lekk dafa am ay tooke ba am ñu ci ba euh, donc am ñu ci am ay feebar euh, Baara Ndiaye étudiant bu ci gaañu ñu ne nag donte autopsie li mu révélé mooy euh, feebar la bu am mais étudiants yi bëgg la lumière soit faite bëgg que la lumière soit faite ci mbir moom mais jàpp naa ne war nañ fexe ba université di lekk-lekk bu baax ñu fexe appal université ab app maanaam université amul heure wu ubbi amul heure tëj le quantum horaire n'est plus respecté beneen bi mooy temps d'étude yi ñuy def durée bi ñuy jàng ban durée la da ngay gis koo xam dafay nekk ba saxub sikki màgget université euh, on se rappelle si suñuy jamono sax da nga daan dend ak ay chambre ñoo xamante ni dañuy liggéey port ñëw di ñuy bisiwaat dëkk bi université donc war nañu seetluwaat defaraat te man li ma gën a déplorer mooy a chaque fois que ñuy jël ay mesures rek il faut que décès décès am ba ñuy xool l' étudiant Balla Gaye bi mu dee en 2001 euh, ci la ñuy yokk euh, def ticket restaurant yi mu nekk ay fanweer rek yooyu euh, bi Bassirou Faye gaañoo yàlla yàlla yërëm ko tamit naka noonu ci la ñuy yokkee seen généralité bourse yeeg yokkaat wàññiwaat tri ticket li nga xam te moom moo di restaurant bi mu mel tey ji jot na ñu fexe ba lii di université ñu jël ko en charge revoir le système repenser le système éducatif c'est-à-dire ñu xoolaat yéen njàng la ñuy jàng parce que njàng mi da ngay fay nekk ay at ba ba génn doo liggéey dara moo tax souvent euh, dañuy am problème sur le marché de l'emploi parce que jànguñ fa lu ñuy jëriñ jànguñ fa tey ñu ngi naan euh, euh, découverte des ressources naturelles pétrole ak gaz te tey jii boo demee université dañuy jàng amuluñu benn rentabilité nga dem ci année ci moyen secondaire beeg yeneen ci élémentaire yi liñ lay prévoir liñ lay préparer amul lenn loo xam sa avenir dana ci jëriñ donc war ñu mën a xoolaat ban njàngin la ñuy dugal ci école yi su ko defee dinañ am benn comportement bu ñuy am yaakaar naa jii étudiants yi leen gën a poussé bokk na ci seen avenir est incertain seen ëllëg daf leen ëllëg pour man nag les autorités de ce pays ne ne pas en compte importance su njàng dañ ko faale li ñu faale mooy politique ba tax ñu dugal ko biir université euh, kenn ku ci nekk am fa say parti politique am fa ñu la fay représenté nga leen di financé mais yaakaar naa ne tey jii euh, li xew. war nañ koo xoolaat ndax bu ñu nee lekk yoo xam ne depuis 1960 moom la yoo xam ne vérifié wuñ ko euh, étudiants yi xamuñ ñen ñoo fa nekk njàng mi tegul ci heure pour man war nañu repenser le système éducatif fii si Sénégal njàng mi sooxee na mais aussi il faut un dialogue avec les acteurs mais lii problème bi mooy tant que autorité yi seen doomi yi jànguñ ci université bi solution du am président Macky Sall doomam jàngaw fa autorité yu bëri ministre de l'éducation sax doomam jàngaw fa et à plus forte raison la ministère boobu